l'histoire li ñu gis nii c'est extraordinaire dans l'histoire gis ngeen Cheikh Bara Ndiaye moom moo nekk noonu euh, Cheikh Bara Ndiaye moom moo nekk noonu Serigne euh, ñoom li ñu gis nii c'est extraordinaire dans l'histoire gis ngeen Cheikh Bara Ndiaye moom moo nekk noonu euh, Cheikh Bara Ndiaye moom moo nekk noonu Serigne Bara Niass ba tey rek askan bi yëpp ñoo ngi fi nga xamante ni moom mooy en tout cas fi nga xam ne moom mooy buntu Cap Manuel ngir la libération du président Ousmane Sonko ak celle de Bassirou Diomaye Faye candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 moom ki nga xamante ni moom mooy Serigne Bara Ndiaye àndaan ak Serigne Mara Niass nekkoon en pleine campagne électorale ci lañ leen xibaar boobale mbir ne Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñu ngi quitté ki nga xamante ni moom mooy Cap Manuel wala rek daal rejoindre encore une fois euh, seen famille ki ko xamal nag moom mooy El Malick Ndiaye chargé de com bu parti Pastef euh, les patriotes actuellement nag ni ngeen ko gisee ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy euh, ci Cap Manuel ñu gis si des militants des milliers de personnes ces sympathisants de la coalition Diomaye Président waaye aussi tamit parti Pastef les patriotes ñëpp ñëw ngir rek daal di gàttandu si. ba jël si ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko déjà 23 heures mooy quelques minutes ñu nekk ci mois de Ramadan mais teewul sénégalais yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy. message bi rek si sama bodaal mooy ma ne parak bi nga ko déggee loo am wallaay talaay bi nga ko am. waaye yow mbégte la am kontaan te billaay Sonko kese. yaa ngi doon xaar Sonko kese. yaa ngi doon xaar mobilisation bu Sonko. waaw maa ngi ko doon xaar. parti Pastef bi nga xamante ni dañ koo rek daal di dissoudre ci noonu nag la ñu wéy rek di ay Jakarta ay ñi nga xamante ni ñoom ñooy voilà gis rek mu ngi noonu ba parce que Sonko rek la ñuy wax actuellement ñu nekk fi nga xamante ne moom mooy Cap Manuel La Perez ñëpp ñu Cap Manuel mais Jakarta boromi Jakarta aussi daan nañ fi ñëw muy les militants yu Ousmane Sonko les sympathisants ñoom ñëpp rek ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy Cap Manuel di xaar ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko c'est extraordinaire dans l'histoire li ñu gis nii c'est extraordinaire dans l'histoire gis ngeen Cheikh Bara Ndiaye moom moo nekk noonu. Euh, Cheikh Bara Ndiaye moom moo nekk noonu Serigne euh, Bara Niass ba tey rek askan bi yëpp ñoo ngi fi nga xamante ni moom moo. kontaan ba bëgg a dee dafa kontaan dafa kontaan dafa kontaan dafa kontaan boo xam ne Casamance laa jugee Casamance. li ngay yéex xibaar bi lan nga def. Casamance laa jugee gars ndax boo xool seet na guy guy guy lii rek moom moo la am lii kese amul leneen. nan nga koy defaatee élection yi comme élection bu garaaw ngay gis jëli ko yóbbu ko pare incha allah ñun Sonko la ñu bëgg. ji bi nga yëgee xibaar bi nan nga def waaw dama kontaan dama jooy bilaay walaay soo ko la ñuy topp la ñuy topp ndax ñu Sonko la ñu bëgg barki Seydina Muhammad Sonko la ñu bëgg barki alxuraani karim bu nekkee bëgguma man yàlla bu ma jar ba pare Sonko jël réew mi bu mu nekk coupe du monde cap kuñ campagne cap na bàyyi campagne tey corruption des zones lañ koy tëjee sëriñ la ñoo teeru waat ko da répété na lay moom ba gëssé kër góor bi da yow yaaka da amul nelaw bu bare ma dem lañ jëm voilà dégg ngeen lu ñu wax euh dañuy veillé Sonko rek lañ bëgg moom lañuy topp ñoo koy jël si nii ñun ñoo koy jël si ñoo koy yóbbu ba këram yàlla tàkk voilà mu ngi noonu ba tey rek ñëwee na ñëwee ni ñu àndaatee ak yéen ñun Sonko rek la ñu gëm ñun moom rek a fi nekk Sonko tey voilà ci li nga xamante ne rek toujours loolu la ñuy wéy rek euh, euh, di gis euh, ñu wéy rek di àndandi ak yéen ba léegi ci. Euh, li nga xamante ne moom mooy la libération du président Ousmane Sonko ak celle de Bassirou Diomaye Faye en ce moment 22 heures euh, passé de quelques simili ñu jëm 23 heures ñu ngi ci nii des milliers de de personnes ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ak en tout cas li ñu gis nii ab cortège la boo xamante il me semblait que ni Ousmane mu ngi ci biir boobale cortège ànd ak Bassirou Diomaye Faye sànq ñu yëg kay xibaar mu ngi wëgg a quitté fi ngir ñibbi li nga xamante ni moom mooy këram pour rappel Ousmane Sonko ñu ko doon condamné li nga xamante ni moom mooy vol de téléphone portable avec arraché ba tax na nag moom Ousmane Sonko ci la jàkkaarloo ak le juge d'instruction mu daal di jëlaat yeneen saat teg ko mais booba léegi nag amaguloon li nga xamante ni moom mooy bu définitif contrairement Bassirou Diomaye Faye mosul am audition en ce moment nag daal na leen di bàyyi purement ak simplement ginnaaw bu ñu voté la loi d'amnistie bi nga xamante ni rek ñu ko voté woon nekk à ba la ñu génn fële ni ki démb selon ma jambal daal di koy def ni ki tey mu boobaa nag Ousmane Sonko bàyyi nañ ko teg ko li nga xam te ni moom mooy loxo bàyyi tamit Bassirou Diomaye Faye tegi ko loxo actuellement nag les militants les sympathisants yu Pastef ñoom ñoo ñëw fi nga xamante ni moom mooy Camp Manuel ànd ak Cheikh Bara Ndiaye ànd ak Serigne Mara ngir daal rek jàppale jël si ki nga xamante ni moom mooy seen leader la ville de Dakar actuellement rythmé d'ambiance ak li nga xamante ni moom mooy de bruit ak li nga xamante ni moom mooy de soir ak li nga xamante ni ñu jëlaat ay réaction mu ngi noonu ñu ngi gis euh, les gardes corps du président Ousmane Sonko ils sont là loolu nag lan lay wax moom mooy rek on a en tout cas l'impression que rek moom Ousmane Sonko mu ngi génn.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 africain, nos ressources minières, gazières doivent être à nous. Et on vous l'a dit, on vous l'a ngeen jàpp tëj ko torturé ko ay njabootam lépp tey jeex na c'est fini weer bi feeñ na dañuy korité suba. voilà voilà ñu ñu ñu ànd ak euh, ba tey euh, ànd ak sama cameraman lay ñu rek daal di war a wéy gën a ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, ci biir a biir ànd ak euh, le caravane bu euh, Serigne Mara Niass ak ki nga xamante ne moom. après nga jël ma interview. voilà mu ngi wax Mouhamed. dama ak ba Euh, caravane bu Serigne euh, Mara Niass euh, mu ngi noonu ñu ànd ba léegi rek ak caravane bu Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamante moom mooy Ousmane Sonko en ce ñu nekk fi nga xamante ni moom mooy cité ñu nekk fi nga xam ne moom mooy Cap Manuel ci libération bu Ousmane Sonko actuellement nag ni ngeen ko gisee rek. voilà comme li ngeen gisee ba tey caravane bi di wéy rek di continuer euh, caravane bu ki nga xamante ne moom mooy euh, Bassirou